asalaamaaleykum gars yi kaa bu rëy xale bii ngeen di gis si photo bi Fatima la tudd Bologna la dëkk moom nag dafa bëggoon iPhone 7 ñëw wax ko maam bu benn xale bu góor xale bu góor bi ne da koy may iPhone 7 nee na moom iPhone 7 moo ko gën a lu ne ci àddunaam xale bu góor bi sant ko ne ko da ngay jël brosse à dents yi ni soo dugal ko sa lëf li woo ma appel vidéo di ko def ba ma daanu mu jël brosse à dents di ko dugal ci data bi di booram boppam di tooyal message yëpp maa ngi moom ak lépp léegi nag ba mu daanu. mu ne ko da koy jox iPhone 7 ba léegi nii Fatima mii 14 ans la am 14 ans ba léegi Fatima jotul iPhone set maam mu jógee foofu envoyé ma vidéo yi vidéo yi dugalu dugaluma ko fenn mu jël vidéo yi di ko tas biir Italie di ko tas biir Bergamo Brescia ba nit ñi jot xale bi dafa daw génn kër kër xamul day xaru kër xamul lu muy def instant bi nag xale bi la ñuy seet ay mbokkam mënuñu koo gis guddi naa leen leeralal lépp nu mu demee. ci Capo Boss Adama 3 ndax Capo Boss Adama dañ koo boole naa leen ko leeral ndax xam naa lépp. salaamaaleykum gars